donte sax bu ñu seetloo ca dëgg-dëgg mbooleem xutba yi ñu fiy def yépp foofu la aju ndax amul lenn lu ñu fiy def lu génn lim ñu indiloon kon ab dundam duut lu ñuy jagleel aw weer duut lu ñuy jagleel ab fan déedéet ab dundam dafa war a labal sunu dund lépp ci di ko màggal ci di ko fàttaliku ci di ko dundal Euh, li sabab nag ñu euh, tànn tey xutba bi jëmale ko ci genn wàll ci lim ñu indiloon muy siira siira buñ ko xoolee li muy tekki dëgg-dëgg mooy naka la dundee woon alwax yi naka la dundee woon moom ak saxaabaam ya lii ñuy tuddee alwax yu muy li ko suñ borom subhanahu wa indiloon ñu jublu ca nag fàttaliku ñun itam euh, dundin woowa ba mën koo niraleeg sunu dund tey jël ci ay bind yoo xam ne daañ ko mën a baaxale defaree ko sunu dund tey jubale ko sunu siira ñun itam ba société bi mën a amaat dund bu niroog dund boobee nga xam ne moom la dundoon mook ak njabootam salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain jàngat ab dundam lu mënta ñàkk la ci mboolem koo xam ne defar société soxal na ko rawatina nag buñ demee ba societé toll ci ay rëng-rëng am ay menaces yu bari yoo xam ne mu ngi koy mu ngi koy menacé ci pas-pasam ci ay xalaatam ci ay jikkoom bu boobaa dafay nekk lu fade ñu fàttalikuwaat naka la dundee woon pour mën caa delluwaat mën a mucc ci rëng-rëng yooyu loolu mooy jagleel gi nga xam ne moom moom la am moom siira bu ñu dee xool mbooleem ñi nga xam ne jo romb nañ fii di ay nit ñu màgg yonentu ya gën caa màgg salawatullahi wa salaamu alayhim ajmain amu ci kenn koo xam ne tey dundam mën nañ koo jot ci anam goo xam ne gu wér la comme niñ mën a jotee dund yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu agsi ci ñun ci anam goo xam ne gu ñu tabax la ci yoon yu wér te fàww ñu am roy moo tax suñu boroom aaree noonu siiraam dundam pour doomu aadama mën a des ci kaw suuf jamono bu ko soxlaa mën a am fu muy dellu mën a am itam royuwaay mën a am kilifa yonent yi yëpp salawatullahi wa salaamu alayhim ajmain seen dund la ko commencé ca seen ganek àdduna ba fi ñu faatoo mën naa wax ne la ca ëpp falsifié nañ ko allahumma ndaree loo xam ne alquran di indil nañu ko mbaa sunna ci seen dund loola moom ba tey mu ngi fi waaye boo xasee génn alquran ak sunna lam tudd ca ñoom dootoo mën a am lu wér ñu ne kon loolu mooy li tax ñu bëgg a fàttaliwaat sunu bopp ci ne booy wut yoon wu wér woo teg sa tànk ah, yoon wér woo xam ne boo ca tegee sa dund mu defaru boo fi jëlee yoon wii mu fi indi woon doo ko mos a am moo xam nag yoon wu wér woowu nga bëgg a tabax sa dund pour yow rekk la wala pour yàgg sa njaboot dong la ci kër gi wala pour yàgg sa société la comme daal ab jullit nga dafa war a bokk ci sa ngëm ak ci sa pas-pas ne fu wér fooy mën a tabax sa dund moom mënatoo koo am gannaaw boo jégee fii la yonent bi sa alayhi wasallam jaar jaarloo woon loolu mooy fàttali bu njëkk bi ñaareel bi mooy alhamdulillah dundam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko commencé famu mu ganee àdduna ba fañ ko yónnee la ko commencé waatee fañ ko yónnee at par at weer par weer semaine par semaine boo fi mu faatoo lépp alhamdulilahi rabbil alamin sunu saxaaba yooyu alkiram ridwanullahi alayhim ajmain yàlla suñu borom gërëm leen andil nañ ñu ko ci anam goo xam ne gu mucc ayib la loolu yëpp pour yombalal la yow jullit bi wan la fi ngay teg sa tànk mu wér la ne boo ko fa tegee yaa ngi ko teg ci ñaari ndëggum ya moom yonent bi alayhi salaatu salaam ñu wan la ko nag ci domaine dund bi yëpp ñetteel bi ci li tax siira am solo mooy dalay nettali eh, jëmbi doom aadama joo xam ne suñ borom da koo teralee woon ak yonentu waaye jëmbi doom aadama la lay njëkk a wan ci moom door laa wan ci moom ak yonentu mu sori lool ak malaaka bokkul lenn ak jinne waxuma laak nag di doon yàlla boo koy xool ci nii nu koy nettalee ci siira dangay gis min anfusikum kenn ku bokkoon ci ñun ñu xam ay woy juram yu góor ak way juróom wu jigéen xam calalaga ga alhamdulilahi rabbil alamin <coughs> loolu tax na nit dootu am ngànt dootu am ngànt ci lan ci ne kii kat kenn mënu ko roy bu doonoon jinne ñu ne kenn mënu ko roy ndax jinne la bu doonoon malaaka yi ñu wax loolu waxuma laak nag buñ ko yàllaaloon loon comme ni ñu yàllaalee isa alayhi salaam bu boobaa moom xel xelaatul roy ko ndéem biñ ko ne ab yonentu la di mbindeef comme yéen la aw nit di wut aw lay bu ñuy mën a làqutoo ba bañ koo roy bañ koo def seen model ci seen dund kon buñ ko woote loon leneen mu rawati waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin génne ko cadre doomu aadama moo tax doomu aadama yi yëpp suñ borom wax ak ñoom ci aaya bi ne am ngeen royuwaay wu rafet ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana <coughs> ah, ñeenteel bi ci li tax jàngat gi am solo moo di ne siiratu nabii sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy nettali ci anam goo xam ne gu matale la koo mën a doon rek gis sa bopp sa place ci biir dundam ba muy doon waxambaane da ngay daal di gis sa bopp ci biir ba mu nekkee waxambaane te di dund ci société boo xam ne ceddo la waaye la muy nekk nekk société ceddo mucc na ca ceddo ga ñu daan naan seeni sàngara bokkut buñ daan def seeni caaxaan bokkut buñ daan jaamu seeni yàlla bokkut kon dañ lay nettali ndaw lu góor loo xam ne société ba mu dundoo ak lë maanaam ba mu ba mu ganee àdduna boo ngeen baal ma ak lënd ma fa nekkoon ak ak ceddo waaye am na xel mu sotti mu mu mat mu toll ni mu koy may mu mën a segg la yell ak la yellut kon yow ndaw li ak société booy mën a dund mënta gën a lëndëm société booba société boobu mu doon dund moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah te moom ba mu ciy dund amagul alwaxyu yow nag yaa ngeeg alwaxyu alhamdulilah kon nam jëfandikoo woon xelum boppam ba mën a mucc waaye waaye rawatina yow ndawul jullit li kon amatuloo ngànt ci mën a orienté sa dund ba dëppale ko ngërëmal borom bi tabaaraka wa loolu mooy benn. waaye itam dana la andil yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme euh, responsable bu jiite ak njaboot takk soxna ami doom nam leen yore woon yor na leen ab diir ñu door koo andil wax yu diire boobu yépp njabootam ci biir Makka. mooy njaboot ga gën a jub njaboot ga gën a tegee ciw yoon kon yow ndaw li amuloo ngànt ci am sa soxna donte yaa ngi dund ci ay société yoo xam ne ceddo la waaye nag suñ borom jox na la ak leer muy alquranul karim jox la sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amuloo ngànt ci ne société bi dafa yàqu kon nag fi famille yi jaar fa la sama di jaar déedéet ci sa famille ba jéem koo niirale ak njabootu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ñu jógee foofu mu joxaat ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ku ku ku yor responsabilité bu génn njabootam responsabilité bu génn njabootam aw nit wuy si ko ci lam doon woote mu jiite leen ca bu boobaa yow itam yow mi nga xam ne kilifa nga yor responsabilité boo xam ne génn na sa njaboot di borom xam-xam di woote. yonente ngoog sallallahu alayhi wa sallam ci ban société société bu bu ñu doon tuddee as al mujtamaul jahili société ceddo ca Makka nga xam ne capitalu këram la woon capitalu xërëm ku amoon yàlla joo fonk bala ñoo xam ne fonk nga ko faaw nga ndi ko Makka foofa la yare woon responsabilité pour war a jël boppam mook njabootam gi ko gëm teg leen ci kaw siraatul mustaqim foofa yonent bi aleyhi salaatu salaam wan na la fa yow këlifaak diina gi ana këlifaak diina nan la war a wommatee ak njabootam ci société yu lëndëm yu mel noonu gis nga lam njëkk a def mooy berleen ci benn kër gu ñuy tuddee daarul arqam yittewoo jàngale jàngal leen ku ca xas dugg ci biir diina ji rek mu yittewoo jàngal la nekk ab sëriñ buy jàngale moo tax ab sëriñ loolu mooy cosaanam sëriñ mos naa dégg ci suñu benn magum daa ya muy wax ne mooy katu njëriñ maanaam mooy jàngalekatu njëriñ ñu dem ca daara ya xam nañ lan mooy sax boo yoree gune danaa ko demal ca kee mu sala mooy demal ca kële mu waxal la jàngal la wolof day dagg baat comme faatimatu ñu ne faama dagg ca lu bari ba ne faama faatu faati noonu la daggee saxekatu njëriñ ci sa sëriñ bu ko defee kon ñu ngi doon wax rek ne yow jàngalekat bi yow sëriñ bi ak nag martaba boo mën a yor daara nga yor mbooloo topp la wala daayira nga yor wala tariqa nga yor wala dangay ngaa jiite association islamique yonente ngoog sallallahu alayhi wa ci biir société ceddo noona mu beroo woon yittewoo defar ay ak njabootam noona nga war a barak sa njaboot defar leen ba jëmbat ci ñoom maalimu tawxid ba société ba du mën a am ci ñoom benn xeetu jeexit bu muy def ci ñoom loolu yow sëriñ bi moom nga war a jàngee ci moom doo nangu mukk njaboot googu dara ci xeetu pas-pas yu yàqu yu ceet doo influencé leen moo tax gis nga mbooloo soo sa mu fa defaroon ñoo wëlbatiku gannaaw buñ defaroo defar àdduna tas borom bi tabaraka wa taala fépp waaye it yonentu bi alayhi salaatu salaam dem na ba paase genn kilifa ak diina cib dëkk dem na tuuti ñu gis ko ca Madina mu nekk léegi njiitul réew jiite réew mu mag li ñuy tuddee tey njiitu réew président wala roi wala nuñ ko mën a tuddee yow bi nga xam ne itam président nga di njiitu réew royal ci moom et sacrifié wul pas-pasam sacrifié wul pas-pasu aw xeetam sallallahu alayhi wa sallam déedéet. dafa aar pas-pasu aw xeetam tëral benn pacte ci biir Madina pacte boo xam ne fa maandu mën a yem waaye nag moom moo ko jiite moom moo ko jiite pacte boobu moo tolloog tey li ñuy tuddee ci àdduna bi ay constitution constitution booba ñu tabax ko ci leeruk waxyu leeruk alquranul karim leeruk sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal doom aadama ya fa nekkoon te bokku ñuy pas-pas naka la ñu war a dundee ci seen biir nam aaree njabootu boppam gi ko gëmoon noonu la aaree woon ña nga xam ne bokkuñoo ak ñoom pas-pas mat gu tool noonu la amoon kon moom làqutuutoon ci gannaaw sàkketu ah ñiñ bokkalul pas-pas nag ba tax nga sacrifier sa pas-pas yow ñiñ bokkalut pas-pas nag ba tax nga sacrifier pas-pasu ñi nga bokkal pas-pas loolu dalu ko woon comme ni mu dalee sunu chef d'état yi tey waaye it dalutoon ña ko toppoon comme ni mu dalee tey ñii nga xam ne nee nañ ñoo topp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jullit boo wax tey ne ko ah yonent bi de nii la doon dundee ba mu nekkee njiitu état naan la mais tey nag problème bi mooy minorité yi ñu bokkalul pas-pas yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund naag ñoom dund naag minorité yooyu bokkoon na ci biir minorité ay juif bokkoon na ci minorité yooyu fa doon dund ay athée yu gëmul dara far waaye ñoom ñëpp boot na leen ca mu gën a rafetee teg leen ci maandu teg leen ci njub tabax ak njabootam ci respecté leen ñu dund dund boo xam ne bu mucc ayib la àgg sax ci dayob bu ñu nangoo seetaan benn kuñ kenn kuñ bokkalu diina keneen di ko lor wala bu koy bunduxataal nee na bu boobaa yéen xeet wi yëpp jóg leen ngeen joxe seen bakkan pour aar kooka ngeen bokkalul pas-pas ana ban doctrine moo àgg foofu tey ci mën a boot koo bokkalul pas-pas laa yanhaakum allahu an allazina lam yuqaatilukum fi ddin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum gis nga an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin kon suñ borom aayewul mukk jullit ñi ñu dëkk ak ñeneen déedéet loolu daf ñoo yar sax ci ñu dëkk ak keneen dëkk ak ñeneen ñuñ bokkalul pas-pas respecté leen seeni pas-pas ñiy jàng alfiqhul islaami leer na leen ne ki nga bokkalul pas-pas moom mu gis na day naan sàngara di ko naanee nam ko war a fa mu ko war a naanee ca biir këram boo ko fa fekkoon tuur bouteille yu sàngaraam yoon dalay yar nga delloo ko ko kon yoonu gënta maandu yoon woowu fii nag lañuy ñuy waxee ne waaye waaye sunu kilifa yi nañ ñu dimbale ci bu ñu waxee sariya ñu ne ñi bokkalul pas-pas minorité yi nangam ak nangam xanaa ñoom dañoo gën a maandu rasulullah sallallahu alayhi wa wala boo gannaaw yonentu bi alayhi salaatu wasalaam ñoom dañoo am lu gën a maandu li fi yonentu bi indi woon sallallahu alayhi wa sallam kon loolaay diina loola nekkoon ca diina nag ñu ngi wax ci suñu émission biig ne diina la joo xam ne moo valable fa yàlla subhanahu wa bi maanaam moo wér moom lañ nangu fa yàlla lu dul moom yàlla nangu ko diina jooja nag doomu aadama ak lu ñuy tuddee doomu aadama amu ca lu mu cay def déedéet suñ borom a ko waajal ba mat mu wàccee ko ci ki gën ci mbindeef yi muy sallallahu alayhi wa sallam kon diina jooja dëkkul penku dëkkul xarfu ñu fàttali na bu baax suñ mbokk yi ne orientaliste yi foofu jéem nañ fee liggéey liggéey bu ne pour moom moomale diina ji araab yi jéem nañ sax wut ay texte pour moomale diina ji arab yi wala pour moomale diina ji makka wala pour moomale diina ji euh, ci golf bi déedéet diina ji du diinay makka du diinay madina du diina golf bi diinay borom bi la tabaraka wa taala diina la joo xam ne suñ borom moo ko wàccee ca xam ba anzalahu bi ilmihi ne ko nag dama laa yónni ila naasi kaafatan ñëpp ci laa la yónni bu boobaa Sénégal dootu am diinay boppam France du am diinay boppam Afrique du am diinay boppam comme ni ko ñoom si bëggee diina yu bees yooyu nag nga xam ne ñoom la si bëgg te seen mag ñaak seen maam ya tabaxoon ko fi muy ñoom euh, De Gaulle ak ña leen fi jiitu woon muy euh, Faidherbe bu ñoom ak ña ca des diina yu bees yooyu lañ ne ñun xamuñ ko diina yooyu ñu jëggaanee ca France xamuñu ko gëmuñu ko lii nu wax nag tontu la ci njiitul réew mi comme moom nee na bëgguñu diina ju importe importé ñu ngi koy xamal ne ko diina jii nekk ci Sénégal nga xam ne nangu na njaaloo nangu na ñàkk julli nangu na ñàkk a woor nangu na ñaawteef wu ne loterie ba léegi sax ñu ngi wax légalisation de l'homosexualité diina ju bees jooju lañ soxlawul ñun diina ju bees jooju soxlawuñ ko ñun gëmuñu ko te kenn mënul ci ci bañ gëm ko du diina ju bàyyi ko ca borom ba tabaraka wa taala diina jooju nag su fekkente ne moom la France gërëm yàlla gërëmu ko na leer boo bàyyi nag danay fàttali mbooleem kilifa diina yi moo xam muqaddam nga moo xam xalif général nga moo xam ab ustaas nga moo xam ab aalim nga cib koñ ne diina jii ñuy dund fii day nga xam ne ay jullite ci ëpp quatre-vingt-quinze pour cent te nangu ñaawtee fii yëpp lenn rek la mënta nangu muy lan kaay leen ñu àtteewoo li yàlla ak yonent andi woon du ngeen mës a dégg ku nangu diine France di woote loolu loolu rek lañ bañ nangu nañ lépp ba mu des kaay leen ci li yàlla wàccee woon ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nañ ñu dimbale ci diina jooja waay jooja lañ soxla kon président ñu ngi koy wax ne ko diina ju bees ju ñuy jëggaane ñun soxla wuñ ko rawatinaak nag nag juñ jëggee ci ñoom feder ba rawatina nag ju ñuy tuddee république ak franc-maçonnerie waxoon naa fii ne franc-maçonnerie fii la ko yonent bi fekkoon sallallahu alayhi wa sallam république fii la ko yonent bi fekkoon moo su cee woote république des def na fi ñaata at juróom-benni téeméeri at ak fukk yonent yàlla Isaa door àdduna ñu tegaat ca juróom-benni téeméeri at fukk ñu door a yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at junni at ak ñaari téeméeri at ak ñaar fukki at. ñu door a yónni yóntu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax bi mu ñëwee wate na ca déedéet bi mu ñëwee nu mu def ak ña ko doon dund dalee na woo jëmee leen ci yàlla ay ndaw la yebal ne ko demal ma ca César jox ko lettre bii boo demee nga ne ko maa ngi koy woo jëmee ko ci diina jii ma suñ borom yónni li naa si kàffa sëriñ bu mu mën a doon nag loolee yonent bi defoon mooy sa woref kon diina ju bees mooy diina joo xam ne dañ naan bàyyee leen César la moom bàyyee yàlla la moom ñun diina jiñ ñu xam mooy diina joo xam ne César moomu fi dara man moomu ma fi dara kenn moomu fi dara ki moom lépp kenn la muy Allah subhanahu wa taala ñun diina jooju lañ xam walillahi mirasu samawati wal ard bu dee nguur mu ne walillahi mulku samawati wal ard asamaan ak suuf kenn ko ma muy nguuru asamaan ak suuf kenn ko ma muy su fekkee ne création bi la mu ne Allah subhanahu wa taala huwa allasi maa fi samawati wa ma fi l ard asamaan ak suuf moo ko bind kon nag alaa lahul xalqu wal amr ki bind moom rekk a yor ordre moo tax ordre yu bees yi nga xam ne mooy nouvelle ordre mondial président nañu ci dimbale ñun gëmuñu ko mboolem luñ tabax ci nouvel ordre mondial dafa ñëw pour détruire lancier ordre mondiale ñun nag loola ñuy tuddee l'ancien ordre mondial te mooy diina lañ gëm ku am nag sañ-sañu wooteel nouvel ordre mondial bàyyil nag ña gëm l'ancien ordre mondial ñu dund ko woote ca ak dictature la lii laa gëm danaa ko imposer ñëpp firaw na ba bëggoon na ko amu ko namruus bëggoon na ko amu ko keneen ku ko mos a bëgg ci kaw suufit du ko mos a am suuf sii li tax yàlla bind ko asamaan sii li tax suñu borom bind ko du fi mos a jóg mbokki jullit ñi boo ko gëmee gëmal boo ko gëmal bàyyil ñu ko gëm ñu gëm ko loolu mooy dalal am réew jàmm cim réew mooy bañ a imposé nit ñi ay pas-pas jàmm cim réew mooy bàyyi nit ñeeg lañ gëm ñu dund ko jàmm cim réew mooy su su su woote jotee wooteel ca la nga gëm bàyyil nit ñi ñu woote ci lañ gëm réew mi tànnal seen bopp lañ bëgg mais lii ñu fi gis dañ ñu ko imposer ñoom feder bu ñoo ñu ko imposer ñoom dégol benn mag ci mag ñu baax ñu feromboon gërëmu ko bay biig rek maa ngi nettali waxu ab Cheikh Abdoul Aziz si keroog ba nga xamee tubaab bi laf nay bagage dem ñoom mag ñi fi nekkoon dañoo dajaloo def benn conseil supérieur islamique Mamadou Dia ne leen gaaw leen kat dem nañ dem ñu ñoom tubaab ya waaye seen ndono fii lay des te constitution bi bu wéyee lislaam du mos a am li mu bëgg wala mu waxoon dëgg la mag ña defu say takkutoo Cheikh Ibrahima Niass mii nekkoon seen seen aminul am seen secrétaire général ñu ne ko gaawal nga bind Senghor na ko lii d'accorduñ ci mu bind lettre ba amul réponse si Abdoul Aziz si wëyoon ca aw wëy doon wax ne kitaabu rabbina huwal kitaabu téereb suñ borom bii rekk dib téere tamassaku bihi huwa sawaabu mooy leen ci kat moo dim njub kayfa yakunu baadahu dusturu yaa ayyuhal ixwaanu laa tajuuru ma gannaaw alxuraan ak sunna lu ñuy doyati ab constitution ne hey mbokki jullit ñi bu leen jeng tegee leen ci yoon bi lu mu ci teg dusturuna nahnu kitaabullahi man jaana bi gayrihi falaahi ñun sunu constitution mooy téereb yàlla lii la si Abdoul Aziz Sy wëyoon keneen ku ñu indi leneen ay fola ma ne kon président ñu ngi lay fàttali waxi si Abdoul Aziz jooju diina jooja lañ soxla ñun diina jooja mag ñooñu soxla woon ñun mam lañ soxla diina ju bees jii nag nga xam ne moom la fi France bàyyi ñu di ko wéyal jooju lañ soxla wut jooju lañ war a tegaat ci kaw taabal ji waxtaanee ko seet nuñ koy def bàyyi nit ñeeg seen pas-pas la nga si Abdul Aziz tegoon lan la tama tamassaku bihi wala tugayiru ahkaamahu bihi alquluba tahiru mooy leen ci lii leen seen bor si waram jox bu leen nangu mukk ku leen soppil àtteeb bi kon mag ña bañoon nañ tey lañ gën a bañ ñu nitam yan nañu yàlla delloo ci xasiratul islam kon soppay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam weeru gàmm ngi nii ñu ngi woo sunu bopp di leen woo ñëw leen ñu dëggal sunu sofeel ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nañ koy dëggalee nag du leen lu topp ko in kuntum tuhibuuna allaha fattabiuni topp ko ci système yi yëpp nag ci barab yi yëpp nag ci naka ñuy sampek njaboot ci naka la ñuy doxalee société ci naka la ñuy doxee politique ci naka la ñuy doxalee économie nationale u réew mi ci naka la ñuy doxalee justice u réew mi ba lépp loo xam ne suñu tawat la mën fay jóg yàlla nañu yàlla dimbale ci loolu ñun diina ju noonu la ñu soxla président de la république ñi fi teew tey enregistré suñu sañoon léegi rek bu ñu génn dana àgg ca palais présidentiel ñu xam ne lii la ñee bëgg te ñu ngi ko bokk ak suñu mag baax ñi fi nekkoon lii la ñii bëgg te ñu ngi ko bokk ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lii la ñuy bëgg te lii la suñ borom subhanahu wa taala gërëm moo ñu gënal nag sunuy bakkan gënal ñu sunu alal gënal ñu sunu njaboot dee ci léegi moo ñu gënal dund ciy caaxaan alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi